xel fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew fépp fu ngeen mën nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm leen dalaat ak jàmm seen beneen numéro sur la question tey jii nag ñu ñëw fii ci Touba Alieu xam ngeen nag euh, bu ñu waxee Alieu gox la boo xam ne Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu xalif Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul moom moo ko sañtoon def ko ay tool ngir li nga xam ne moom mooy génne ji tool yooyu mu di ko dugal euh, ci liggéey jumaa ji nga xam ne way juróom bu sell ba euh, bàyyee woon na ko ko nag bu ñu ko tuddee tamit xel yëpp day dem Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou mi nga xam ne moom itam moo kon juróom beneen xalif Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moom itam mu liggéey fi liggéey bu am solo ba tey ji njabootam dawal leen fi nga xam ne moom moo di aliya xam ngeen nag ñu ngi ci weeru rawa rajab comme ni ngeen toppee ci émission yi nga xam ne ni moom moo jàll ci seen euh, émission sur la question tey ji ñu ñëw aale itam ngir waxtaane waat ki nga xam ne moom moo di jëmm ju sell joojulee xam ngeen weeram moom mooy weeru Serigne lu ñoom ñoo bokk lépp ba tax tey njabootam euh, fas waxtaan waxtaane li nga xam ne moom moo di taarixu Aliya waaye itam wax ñu lenn ci ay jikkoom waaye itam euh, ni nga xam ne noonu la fonke woon bërëb bi ñu nekk nga xam ne moo di Aliya loolu nag moom moo tax tey ñu daal di euh, dalal sëriñ Modou Mbacke bu sëriñ Moustapha Alhaji Baara Mbacke Falilou li nga xam ne moom mu ngi fii waaye itam nekkoon na ci keppaaru maam ju sell yooyu Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbacke ba tax mu xam ci lu bëri loo xam ne nii war nañu ko baaxee ànd ci ak ay mbokku taalibe yoo xam ne ñoo ngi fii ci Aliya kon xam naa laataa ñu dugg ci biir waxtaan bi dañuy bàyyi sëriñ Modou ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ngi sitaan sëñ bi ñu lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyoo bi lislaam di yital ci nuyoo bi xalifatul am li taifatul murida cheikh mohamadul muntaqa di wàcc di nuyu sëriñ aboo mi xam ne mooy jëwriñu kër cheikh mahamadul di wax ci ndigalu sëriñ moustapha ibnu cheikh mohamadul lemin ak njaboot cheikh mohamadul lemin gi yëpp ñuy nuyu suñ mbokk taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu waajur wu toog fii ci jotaay bi sëriñ Abu Mbàkke ak sëriñ Touba Sylla ak mbokk taalibe yu toog fii ci jotaa bi yëpp. ndax loolu mën euh, ko ñu ñëw ci euh, li sosal sos dëkk bi ak ni duggee ci loxo yi Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Mouhamadou Fadal nekkoon na fi di wetal boromam di fi jaamu yàlla di fi liggéey. waatoon na fii bi muy liggéey ci jumaay Tuubaa ji ne su ma fi naree liggéeyee dara te jëmut ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi yàlla lépp doon xorom fii la ko waatee woon ci dëkk bi tedd bi mu nekk fii am na ne 48 ñu ne yàlla dogalee mu fi bàyyikoo di dem di sanc Tuubaa Bogo mu yebal fi doomam ju tedd ja jub taalibeem jub dongaam muy Cheikh Mahamadul Amin yàlla dogal mu nekk fi ba xëy di Cheikhul Xadim mu fonkoon dëkk bi loolu daawul xëy te ñëwu fi ñaari yoon wala ñetti yoon loolu moom mën nañ kaa seede yàlla dogal na tamit fii de wàccee liggéey fekk ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkaale jéeg maamam ju tedd ca Seexul Xadim ak waajur mu tedd ba ndax fii ma toog nii sama ëttu bi di lenn ci màkkaani Cheikh Mamadou Lamine ndax lépp lu am rek ci darajaam lañ ko amee boo xoolee xayma diggante penc mi ak pencum Tuubaa war naa toll ci juróom benn kilomètre ndax cornomètre naa ko ci sama oto diggante bi loolu lay toll daan nañ dégg sëñ mitim mi wax ay jamono yu yàgg nee na daan na xëyee fii jëm Touba wala muy xëye Touba di ñëw fii dana fital ay rab àll ay cokkeer ay naat ca jamono jooju waaye nag mel na na tey bu ñëw xam ne ki ñu ko bàyyi woon yokk na dëkk bi ndax dundal na fi ba yàlla dogal mu xëy ba nekkal fi yoonu murid bi yëpp nekk fi Serigne Touba bi mu nekkee Serigne Touba tamit defaat na ci dëkk bi yokk fi ndax tali bi yi ngeen gis ngeen ñëw amoon na fi waaye moo ko defaraat mu nekkaat bu bees ak li ko wër yëpp penc mi ba ci kaw ba ci euh, xaddim ci kaw suñ mbokk busa busa yi nekk foofu ndax ñoom tamit am nañ wàccuwaay bu mag ci dëkk bi waaye bi mu nekkee Serigne Fallou daan na fi ñëw mu nekkee Serigne Touba nag dafa rawati ndax ku fàttaliku te amub seetlu rek ñuy liggéeyluwaat kër gi rakkam ju Sëriñ Abdul Karim moom ñoo ko doon liggéeyluwaat mu yeesalaat kër gi mu ñëw fi ñëw immigré kër gi ñaanal ko wax ko la mu koy wax yàlla dogal na tamit waajuram wu tedd boobu muy soxna Xari Sàll nga xam ne mooy waajuram jigéen ak ko fi ak ñaan ginnaaw bi Sëriñ Galas aju Mamousso man mii sax yàgg naa fi ndax 2010 laa fi sancoon fii kër gi gannaaw bi sëñ bi ñëwaatee laa ñëwaat ci kër gu mag ba fi mu ne nii ñu ngi ci travaux yi di àggale ngir bëgg rek ñi fi ñëw xam ne kat ñi ñi moom dëkk bi ñu ngi toppatoo dëkk bi. Mm-hmm. suñ waajur bi toogoon léegi suñ aboo moom tamit am na fi màkkaan ba fi day màggalee. Mm-hmm. bëri na njaboot gi daal ñu fi am kër suñu seex ndindi moom tamit moo topp ci Serigne Moustapha defar na fi këram. Mm-hmm. màggal bu jot fi day màggale ak soxna Maam Moussa ak soxna maam Mbar rakk Serigne Mourtala bëri na njaboot gu fi nekk mbokki taal bi nga gis yëpp tamit kër goo fi gis rek ci waa kër gi lañ bokk mu mel ni ñu ngi jub euh, bis Serigne Mouhamad Lamine Bara màggal gi naka ngeen koy waajalee fii ci àll màggal gi daal ni ñu koy waajalee mooy li Sëñ Tuubaa di mooy lu tege ci farata ak sunna foofu rek lañ nekk mooy jàngal xuraan jàng xasida tudd yàlla sikkar ñaan ci darajey ñool màkk si yonent bi sallallahu alayhi ki ñu defal bis bi suñ borom jotale ko ci yool ba moom maamam ju tedd ja Seexul Xadim ak waajuram bu tedd Cheikh Amadou Fadal ak magam ju tedd ja xam ne Serigne Fallou da leen a boole woon mu Cheikh Amadou Moustapha mm-hmm. euh, li nga xam ne moom moo jëm ci waajtaayu màggal gi yéen ñi nga xam ne ay sëtam ngeen ci programme bi lan moo lan moo ci yokk wala lan ngeen ci daan def loo xam ne nii ren bëgg ngeen ko ci dugal waa ren de liñ gën a yaatal ci bis bi ndax suñ conférence bi ñuy def la 30 Serigne Abdoul Baaxe dañ ko tuddee mu amoon a góorlëri Serigne bi ku ne xam ne sëriñ Abdou Baax di doomi sëriñ Masamba sëriñ Masamba ñëpp xam nañ li mu bokk ak ku tedd ki moom lañ dara jaale guddi gi lu jiitu màggal gi mooy bu ñu nee ñaari fan def si màggal Alaaji Baare muy samedi. loolu mm-hmm. ñu tuddee conférence bi sëti Alaaji Baare yi ci suñu mm-hmm. jiite daayira bi ak njaboot gi yëpp. ñu koy amal fii di ko ànd ak sëti sëriñ Tuubaa yëpp ak sëtaat yi. Mm-hmm. di dundal dëkk bi ak wàccaayu màggal gi. ndax tamit dañoo am cër bu ñu cëralee ndax wàllu organisation bi. ak aversement bi ak accueil bi lépp sëriñ bi da kaa teg suñ loxo mhm. ñuy bëgg a daral gan nit kenn bañ a xiif kenn bañ a mer ku fi ñëw rek yóbbaale dara mhm. ginnaaw loolu lan nga ñu mën a fàttali ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara loo xam ne yow dund nga ko ak moom waaw sëriñ Mouhamadou Lamine de liñ mën a fàttali ci moom mooy lañ tàggawoon yonent bi rek waaye naka laa laa mooy nit ku laabiroon la ku rafetoon xol la ku bëggoon waajuram mu tedd si Amadou mën naa ne lim am lépp looloo ko may mooy tabe ci daraja daan na wax ne ñett yi du ma ko xañ doomu aadama mooy sama signature ak sama coup téléphone ak sama dàll bi mu fi nekkee Sëñ Tuubaa lim def ci intervention toll na ci junni ak lu teg ci ay leetar bokkut ak yi nga xam ne day yebal nit ku mel ne man wala mu yebal ku mel ne sëñ Moussa wala mu yebal ku mel ne sëñ Galas Kaltoum ak ñeneen ñoo mënta cité bokkut ak yi xam ne mooy wooteel boppam wala mu yabal ku mel ne sëñ Tuubaa si lem yi toog sama wet wala mu yabal yeneen mbokk taalibe xam ne ñooy dox loola bëri na ñum teqale ñu ñu waroon a finnaal ak ñu waroon a néewal doole ndax bëggutoon ku ñu néewal doole ndax moom loolu foofu rek la nekkoon na bàyyam ba amoon yërmande Seexul mm-hmm. Xadim amoon ko yërmande moom foofu rek la tegoon tàkkam mm-hmm. mooy bay na fardi wa sunna mooy teg ci tànkam ci farata ak sunna mm-hmm. foofu rek la nekkoon xam mm-hmm. naa incha allah jotaay bi ko gën bu fekkee sëñ Touba am na ay kàddu yoo xam ne ni war na ko ci mm-hmm. sànni ñu jox ko moom it ginnaaw ci keppaaru sëñ bi la nekkoon tey ñu ngi taxoo ak njaboot gi ci la bokk ci biir ci biir njaboot gi mu sànni ci ay kàddu su ko defee ñu doog a tëj bismillahi rahmaani rahim sant baax di leen gërëm di rafetlu tànk ñu dox ba ñu fii ci sant sëñ Mouride nga xam ni taalibe ci kër gi di doom waaye doom bi sax gënalu ko taalibe gi ko gënal ndax euh, ci liñ mën a wax xam ne sax des na ko gërëm waaye gërëm bi matu ko ndax nit ku ku def lu la war euh, loolu moom yaakaar naa jaajëf rek a ca topp euh, ndax nit moom yàlla dogal nga am ñi nga xam ñoo war seq muy diggante mbàkke ak mbusoo bi mm-hmm. yàlla dogal na sa waajur yi mbàkke la yi la noo mel ne ci baax jommaliw mhm. kon loolu rek moo ko war xanaa di dellu di sant bokki taalibe yëpp di gërëm ñëpp mhm. di ñaanal ñëpp di ñëw ci mag gi ak jàmm mhm. jëlif ay xéewal dellu ak jàmm ci barkeb Cheikh Mat Fadal te kenn bañ a loru kenn bañ a fakkatalu kenn bañ a fakkastalu ñoo ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mat Fadal ku dikk saa dafa la tawféex ju gën a kawe ci kawe ci kawe yi suñu borom yi ku am yéene dikkit saa borom defal loola yu bëree bëri xanaa dellu jaajëfal bokki taalibe yi di santaat Cheikh Moustapha bu baax ci jiite gi mu jiite kër gi te nangoo boot ñépp ndax looy it jikko la mm, jiite yombut aw sas la du kum neex jiite du kontaan nga jiite jiite dogalab suñu borom waaye ñi nga xam ne jiit ne nangu na dogal saa borom ci moom loolu ñoo ngi leen jaajëfal muy rakki muy rakki Seex Mustafaa yi ñëpp tan bokk alxaaji baay te ñëpp jaay seen njureel jëndee ko ak ne ko seen maam ci defoon Cheikh Ahmad kon ñooy ñoo ngi leen jaajëfal ndax ku comme ci neexoon nga ni maag si Mustafaa ñoo bokk alxaaji kon sañ-sañ ba am nañ ko ndax sëñ Tuubaa boo ci xasee deretu rek yaa ñëpp ci bokk sañ waaye nag toppante gi la wuuteeg li ci des te loolu sëñ Tuubaa def na ko Cheikh Mat Fall def na ko kër gi ba na kon ñu sant ñëpp di ñaal ñu gën rek di sant sëñ Baara faal mii door a ñëw mm. ndax Cheikh Mahamadou Lamine lañ ko tudde mu nekk yor daara jàngale doon imaam mm. kon kon ci produire yi nga xam ni moom la Cheikh Mahamadou mm. euh, Lamine produire bu koy gën a kawe boobu amul mm-hmm. ndax defar nit ba nit koy defaree loolu mooy produire bi ëpp ci solo ci lu ñu di def dëkk bi euh, euh, liggéey bi macha allah ndax ku mel ni ay usine am na fi yuy defar ndox yuy defar cere yuy yuy yuy xolli gerte yeneen ak yeneen yoo xam ne bokki taalib yi nekk ci dëkk bi ñoo ko fi def seeni morom bokk bokki taalib ci yëngu di ci mën a am lu terloo ak lu defa addiya looy nag lépp ñu koy dellu sante Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi ñu xiirtal ci loola ba tax loola mën a am kon ni bokk di jaajëfal ñu yor usine ñooyu ñu ñu am na sëriñ bi la comme ñëpp ñëpp ak sëriñ bi la ndax fii ku fi dikk ak foo mën a bokk njabootu sëriñ bi rek tax nga ñëw fi ndax nit moom yaakaar la ñu toppi nit kon ku fi mën a dikk ak koo mën a doon sëñ moom dina la boo toggantee ndax looloo mooy wartee fam sëñ te boot di kenn ndax kilifa mel noonu ba kon ku fi moom commune Source Mbacke Gueye moom du du du naan da naan sëñ bi la ndax nam dee woon xam nañ ko am na loo xam ne di su ko wax ci ci ci ci yenn ci yenn di mm. waaye ñu ko xam na ni ci njaboot gi la bokk mm. ndax moom sërta ci maam seex Anta di sët ci sëñ Masamba ba nag bokkaat ci taalibe kër gi foofu yooyu yëpp dëxañ ko jënd ko ak taalibe ak ñu mel ni ñoom ñu baree bari ku mel ni sëñ Fallou mii nga xam ne doomi si alaaji la xam moo fi indi yi daw ci dëkk bi loolu ci produire alaaji baara la ak yeneen yun yun yun yun yun mënta wax ku mel ni Camara mii nga xam ni ab ab ab xam malien la xam Guinée nga xam daa dikk nga xam ne daanaka lii li ci dëkk moo ko lijjanti lépp baax ak si alaaji baara ci ci ci ak ak ak ak faggu téefam ci la ko jëlee ak yu bëree bari yoo xam meesu koo lim waaye day day am solo yoo xam ni kuy wax ci aliya donc otul ba xam ne ay jàmbaarang fi yoo xam ni mhm. nit ku yoruñu seen làmmiñ jox dañu war a yor seen jëf di jëf mhm. te nag la Cheikh Rafal waxoon dañ koy dal dund. te loolu tamit ça ndax 10 euh, ans yi ci ginnaaw gis hmm. nañ ni dëkk yokkoo ci côté économie gis ko ci population. ku fi jaar wala fi ñëw di nga xam ne fii yokku na. kon loolu la tegtal mooy ñi fi dëkk ñooy góorgóorlu. ndax bu fekkoon fa sëñ Alaaji yemoon la ñu yem mhm. kon yaafus day am te olof dañu ku yokkul yaa wàññi waaye jaaraama ñoom yokk nan te ñoo ngi ñaan yokk gën a yokku ñu koy ñaan ci barke Cheikh lépp ñu fekk kon ba dara sëñ Fallu mm. jërë ngeen jëf xam naa kon dañuy jox sëñ euh, sëñ Baara ci ay kàddu yéen mbokk yi nga xam ne yéen ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li ngeen nuyoo suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Moustapha di ko ñaan suñu borom may ko gudd fan ak wér waaye tamit di eh, sant sëriñ Modou Mbacke mi nga xam ne moom lañ fekk ci këram gi ci jataay bi nga xam ne moom lañ fas yéene ànd ak moom ak sëriñ Touba Sylla mi nga xamante ne moo doon wax sànq wax dëgg yàlla liñ jot dégg ci eh, waxam ji am na solo lool ndax eh, daanaka li ëppoon solo ci lu jëm ci wàllu mbirum dëkk bi comme yow soxna si ni daanaka li ci am solo lépp wax na ko sëriñ Baara nag mi ngay xamante ne moom moo leen tax a jóg ngeen ñëw fi ngir def ak leerlu ci moom yaakaar naa sëriñ Baara dafa nekk jëmm joo xam ne eh, jëfewut a xamle ndax ay jëfam moo ko wone ndax li fi nekk ci nekk sëriñ Touba yàgg na yàggut waaye li mu fi def te sëñ bi ko sànq loolu rek daanaka doy na ci wax sëñ Baara waaye sëñ Baara dafa nekkoon eh, jëmm joo xam ne eh, mbaax nga bu jàllee waaye tamit woyof ga bu jàllee mu nekkoon tamit nit koo xam ne eh, ku bëggoon lu baax la ndax bëgg lu baax loolu moo tax ba eh, lépp loo xamante ne nii jàpp na rek lislaam bëgg na ko mu nekk lu rafet te makk am ko loolu lépp kon du ko yéene dëkk bi di Touba. Mm-hmm. moo tax bi mu fi toogee eh, gis nga ni mu def dëkk bi waaye rawatina jumaa yi Touba ji nga xam ne mooy li nga xam ne bokk na ci naal fi Serigne Touba bàyyi woon ci ginnaawam euh, li mu fi def ba nga xamante ne ku fa dugg tey sa xel day dellu ca bërëb bee di Makkatal Mukarrama wala ca Mati Munawara kon Serigne Bara kon ci côté boobu moom am lu bari loo xam ni da ko fi joué waaye tamit Serigne ci yërmandeem nga nga xamante ne da koo ëmbaloon ñëpp nga xam ne daawul xaj di amul seen ñëpp ci bokk yam ku mës a am jafe-jafe ak loo mën di doon sëriñ baara da cay taxaw nga xam ne ku bañoon wàllu violence la damay wax ne sëriñ Baara jamono yi passé àdduna bi liñ dund rawatina ci suñu réew mi di Sénégal liñ dund ci ay mbir yoo xam ne jaaru ci yoon soo ko fekkoon ci kaw suuf yooya du euh, du am ndax yonent bi sallallaahu dafa wax ne ci xadis ne man ra'a fal munkaran falyughayyirhu bi yadihi aw bi lisaanihi aw bi qalbihi waaye sëriñ Baara moom bi fi nekkee moom da ko daan dindi ci ñaar yi ci loxoom wala ci làmmiñam loolu nag jamono ji dañ manqué kon sëriñ Bara kon bokk na ci li nga xamante ne euh, ñàkk nañ ko de waaye réewum Sénégal ñëpp ko ñàkk muy jullit bi ak du jullit kon Serigne Bara yërmandeem yaatu na ko yaatu na yaatu goo xam ne daanaka ñim ci xeet li bari nañu bare ñoo xamante ni daanaka euh, tey boo leen doon tudd fii euh, daanaka fi ngay fanaan waaye tamit Serigne Bara tamit dafa am tamit yeneen melokaan yoo xam ne dafa nekk ci moom tamit ñu war ñun ñu ko ci roy ndax dëgg la nit baax na loolu am na solo waaye nag nga topp ci jukkoom loolu la ci ëpp solo ndax yonent bi alayhi salaam mi nga xam te ne suñ borom moo ko bind tànn ko mu gën ko yàlla bind dañu koo royloo roy gi sax dafa dem sax ba ci ñun dañ dañ koy rey ci ni mu daan lekk ni mu daan naane ni mu daan solo ni daan tooge ni daan soccoo ba sax ni daan peñewoo kon nag sëñ baar tamit ñu tamit noonu lañ ko war a royoo ci maanaam ci melokaanam ci woyof ga mu nga xam ne maanaam àdduna jëlu ko woon ndax yàlla defal na ko lépp waaye sëriñ baara nañ ko xamee woon démb ba ni noonu lañ ko xamee koo xam ne la nga daan dund démb moom nga dund tey moo xam lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la nam daan solo démb noonu la solo tamit waaye tamit fa mu nekkoon tamit démb fi la fi la nekk ba nu fi jógee néegub seen ko daan tiim te yaakaar naa jamono ji euh, sama classe gi tey bu ñu amoon bu amoon as tuur rek waxuma la ay seng waaye daa nekk ay dañuy bëgg nekk ci ay sato waaye suñ baar yëpp moom da koo tegoon fële ndax dafa xam ne àdduna amul solo ndax yonent bi alayhi salaam dafa am benn saxaab bu mosu ñëw laaj ko laaj daane ko naa bëgg nga dénk ma mu ne ko li may dénk mooy na nga dëdd àdduna ñaareel bi mooy nit ñi liñ yor bu ko soxla suñ baara nag ci loolu loolu dënk woon suñ baara àdduna koo tegoon fële waaye suñ baara mus sa soxlaal kenn dara dama ne suñ baara mooy mooy koo xam ne nekk na fi ba jóge fi kenn du ne ko amee na ma nangam moom kay ci ginnaawam lañ xool ne am na ñoo xam ne nii ñoo ko yoreel ñenn ñi fan na woon seen tur ñenn ñi njaboot gi ñoom ñoo ko dindi nga xam ne kon euh, sëñ baar daal soxna si ci gàttal daal euh, mën nañoo tàmbale foofu tuuti rek mu nekk ab ñamali boo xam ne euh, dinañ ci mën a kii incha allah bu dikkaatee ci biir mën nañ cee gën a yaatal yeneen tomb yoo xam ne mën nañ cee jëriñu. jërëjëf sëñ Bara ñu ngi lay gërëm bu baax di la jaajëfal Euh, dañuy daal di yëkkandee te yëkkandee foofu jataay bi su ko defee moom incha allah nañ amaat ak yow beneen jataay boo xam ne mooy gën a mooy gën a yaatu bi euh, kon dañuy bàyyee kàddu gi ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou su ko defee mu daal di euh, tënk ay kàddu mi mujj ñu daal di yëkkati jataay bi boo beneen yoon comme ni ko mbokk taalibe yi waxee rek imam bi jeexal léegi Serigne Bara Fall xam ne di Serigne Touba si la doon wax dafa tombe ñu ko doon xaar far mu yéex agsi ci lu mel ni la jóge mooy li sëñ bi bàyyi woon rek mooy ci produit du Alaaji Baara yi la bokk ndax moo yore daara ji di fi jàngale alxuraan di fi jàngale majalis yore jàkka ji di fi tudduy doom di fi jullee néew te loolu mooy ndonn li gënal sëriñ Touba kon nag amel nañ ko kentu ñun njaboot gi yëpp ci turu sëriñ Moustapha ñun ñëpp a ngi koy sant di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te ko mm-hmm. li ñuy waajalee màggal gi daal mooy jàng alxuraan jàng xasida sikkar salaatu ala nabi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëpp nag ndax sëñ baara ñëpp la amaloon relation mooy tijaan murid xaadir laayeen ñëpp ummu islam bi yëpp la am lante woon hmm. ba ci suñ mbokk chrétiens yi sax amoon nag ñoom relation hmm. muy relation yi dëgër hmm. kon nag fa mu tegoon tànkam ndax bi mu nekkee xalifa sëriñ Tuubaa li muy gàtt gàtt fu na dugg na fa ci tarixe ci tarixe yi nekk senegal dem fa seeti leen dem na Kaolack Tivaouane ña fu ne rek dem na fa loolu nag day wane ne woon na na waajuram ubbeeku woon nekk ni ku ouvert noonu la Serigne Bara meloon kon nag ñu ngi lancé appel ñëpp di woo ñëpp rawatina mbokk jullit yi si bisam bi xam ne amuñu lu moom ñu ñaan képp ku munta ñëw tamit te am ngànt nga toog fa nga toog te ñaan ndax ñaan mooy lépp ndax ab jullit li ngànnaay mooy ñaan ab duwaa moom mu'min kon ñu ngi sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko sànni ko ay ay salaatu ala nabi defal ko ay ay xulwallah ndax ñaan moom du doy kon nag ñu ngi koy fàttali mbokk jullit yëpp di ñaan suñu borom ñi xam ne dañuy ñëw di màggal si bu ñuy ñëw indi ay bagaan taataan te xam ne Sëriñ Fallu ndab loo ko taat taaj dana ko duy ba fees rawatina Cheikh Amadou Lamine mm-hmm. ndax lam na woon dugg naa ci biir Sëñ Fallu Sëñ Fallu dugg ci biir Sëñ Tuubaa ñun noonu la ñu fas dugg ci biiram mm-hmm. kon nag ñuy ñaan ñëpp ak si jàmm dal ci jàmm génn ci ak tàmbali ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te ñi ñoo ñëpp suñ borom bañ leen indil benn gàllankoor jéego yi ñuy ñëwee ak yi ñuy delloo yàlla na ko suñ defal ak njéggal ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi lancé appel ñëpp nuyu ñëpp di siyaar ñëpp balaa ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen sant bu baax Baara Fall ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon assisté ñëpp ñu ngi leen di jë gërëm di sant ci bàyyi xel bi nga xam ne ko doon bàyyi xel émission bi nga xam ne ñu ngi ko defee woon fii ci Alieu di ñaan yàlla suñu boroom dajale ñu ci ak ngërëm ki nga xam ne moo taxoon ñu jóg euh, ñëw tànk yi fii ci Alieu mu Cheikh Mouhamadou Lamine baara di woo ñëpp tamit ci màggal gi nga xam ne nii mu ngi war a am lundi yaakaar naa ni suma le premier avril Euh, laata loolu nag sëñ euh, Modou fàttali woon na ko sànq conférence sët yi nga xam ne nii war naa am. Euh, ci samedi bi. incha allah di ci woo mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ngi fépp ci biir réewu Sénégal ak ci bitim réew ñu ñëw assister ko ndax yaakaar naa ne weesuwul waxtaane ay nit ñu baax waaye tam weesuwul jotaay boo xam ne Serigne Touba gërëm na ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm na ko. kon daal yiw woowu iñaane wuñ ko benn jullit ñu ngi ko yéene ñëpp te ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tamit yàlla na ci suñu borom boole ñu leen di gërëm baax yi ñu doon bàyyi xel seen émission la question incha allah jataay yooyu yëpp ñuy wax fii ak programme boobu yëpp mën ngeen ko bàyyi xel seen site wan leen ko yéen ñi nga xam ne yéen nañu sitaan yéen dig daje beneen yoon di gërëm tam waaye xarala yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon bu ngeen mën ñoo teg bët ci cadrage bi seexu naa ak ñoom sëñ Fallou ak Serigne Saliou ci montage bi Khadija ak équipe bu rédaction bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal leen di daje beneen yoon jërë ngeen jëf